ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi ñuy suivre ci chaîne bi di Likzo TV sûrement bu fekkee gan nga ci chaîne bi mën nga abonné nga ba sale su ngir vidéo ne bii moo di njàpp mooy boobu nga xamante ne bii mooy fecci fële nga xamante ne bii moom la ñuy wooyee Subatel musique nga xamante ne bii moo di Sidi Diop booy boobu kat dafa soloon ay solin wu doy waar boo ne bii solin bi dafa jigéene trop trop trop trop ginnaaw boobu loolu jàllee kii nga xamante ne moo di Barra Zero Stress dafa génn def ci ay révélation yu doy waar wax na ko wax ju garaaw a garaaw nag gars yi ñu dem seetaan loolu. borom col ko gu bon gi mooy njàpp ah ok am na ñetti mbir yu ko may sens moom njàpp ci li mu def nii ci laa bëgg a ñëw. nee nañ ma it fecckat la ci Sidi Diop beneen bi ci topp nee nañ ma bokkoon na ci booy yi fi defoon samara ndimbiri ndimbiri ah samara ndimbiri ndimbiri oh à l'époque ok ku ne xam na ne man Sidi Diop du sama artiste sama frère dama koy wax lu ma neex bu defee erreur buñ paree àndaat. kon Sidi Diop mayut la sens benn bi la may sens mooy cas bi dafa ñëw tombeek ñu nekk école ñun di jàng parce que nag ñun ay intellectuel lañ dañuy jàng xam nga intellectuel du bàyyi jàng fu mu toll mu ngi jàng benn boobu entre la woon beneen bi ci topp mooy man bi ma gisee video bi bees dama jàppoon ne moom mu ngi ci piscine yi nekk Paris xam nga boo nekkoon Paris di def yi man sama yoon nekk sama fou de ça mais ma dégg ñu ne Sénégal la ko defee te dafa am ku ko ko santoon pour mu tournage dinaa def samay investigation nga ëmb say koy toog maa ngi ñëw ci yow njàpp